asalaamaaleykum Sénégal yëpp asalaamaaleykum réew mi ah di baalu ak réew mi Sénégal France Espagne Toulon Afrique sud Gambie Guinée Bissau Guinée Équatoriale ak ak ak Burkina Faso ak Mauritanie ak Éthiopie ñëpp maa leen di baalu ci li fi amoon muy sama yaay te ko jéggalu ngir baal gi ma baal ngir nga xelu xale ma jàppoon ak xelu dof di baalu suma rakk day faatu taxawaay nga bu rafet parce que yaay dafa sax ci xol baal gi man baal gi ngeen ma baal yal na suñu borom suturaal yal na yàlla sàmm di baalu Sénégalais yëpp nag di baalu man xaw ma dara xale bu ndaw laa dama précoce rek damaa teel a damaa teel a xew rek xew nag moo moo moo moo di mel des fois folu jàpp la ngay wax loo xam ne waroo koo wax di nuyu tamit ñi ma taxaw muy waa diaspora 221 ginnaaw yàlla lépp seen taxawaay la kon yal na suñu suturaal sama yaay kontaan naa trop mi sama yaay di kontaan si Ndeye Fatou sama yaay ji nag kon Fatou na yàlla sutura yaa na yàlla sàmm yaay nga baal ma àq ngir ma jégal ak ci weeru weeru sell wi muy soxu Ramadan yàlla yaay àdduna mu solo kul naf say xatimati kul naf say xatimati bakam du di nga ñam kontaan naa ni nga baale yal na yàlla bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla sama yaay bu ko yàlla neexoon fàttaloowe bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon mu def la màkka wala kurus wala ndoxu sam-sam wala sijaada yabe bu ko yàlla neexoon sa neex bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon nga maandu wala maandu oo boole jubóo bi mag fàttaloobe sa neex na yàlla defal jàmm. sa neex moo leen jubóo yal na ko yàlla sutura. sa neex moom la. Sané ak Amady Badiane. Amady Badiane ak euh, sama yaay Kole Faye. Kole Faye ak Kole Faye ñoom ñëpp damaa kontaan ñoom ak sama yaay Awa Balde. Awa Balde waaw. sonn na ci chaque jour mu woo ma. Mm. baalul sa yaay Fatou Laobé baal baalu ko baalu ko. ak bisu kontaan naa ak sama yaay bisu jagana ñoom ñëpp jàpp nañ ci xuloo bi Pawlish xale nga demal jégalu ñoom ñëpp. Sanekh moom sonn na ci lool bu baax a baax yal na ko su ma gis nañ li ngay def nag yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla sàmm. Hmm. dama di bajaan gis naa taxawaayam. sama kenn ñoom ñëpp samay pen lañ ci sama kenn. mais bàyyi tooñ nag ñoom ñëpp noo xale laa te des foli jàpp ma. Hmm. te man xaw ma dara damaa pérékosté rek barki alxuraan xaw ma dara pérékosté nga ma jàpp ak foli bu la foli jàppee doo xam sa li nga war a wax. ak say nekk ci. ah yaa ko génnee cinq cinq cent mille say nekk moom dama baal teer rek tax. doo doo yóbbu ñoom xaaj faxu leen dara faxu leen ñoom dañoo regg dañoo suur yal na yàlla suturaal sama yaay fàttaloo bi déwén barke Seydouna Mouhamad maa la yóbbu màkk. ah bon. barke Seydouna Mouhamad. Hmm. ma am ko ma ñàkk koo am. Hmm. barke alxuraanu kani moom sama maam laay boole yóbbu màkk. kañ. ci ci ci ci ci tabax biir. tabax ci biir barke alxuraan. bi barke salaatul fatiha moog sa maam su ma nee na jaay sama bee yëpp dinaa la yóbbu moog sa maam Màkka mu dem ziare Seydina Muhammad ndax jégal mu la jégal jégi gi ma jégal dakaa oh. dakaa dama dama damaa jégal ak xol jégal goo xam ne amoo ci benn xol ki ñaan mais yal na la yàlla sàmm saa neex sàmm yal na ko yàlla suturaal Amady Ba yal na ko yàlla sàmm kon dafay mm-hmm. ñëpp taxaw nañ ma waali ñëpp tax ñëpp képp képp képp ku di Pawlish taxaw nañ ma mm-hmm. yal na ko yàlla sàmm fataloo bi incha allah billaahi wallaahi barke alxuraanu karim maa ngi ki la yóbbu màkk barke alxuraanu karim

du sëy man ak yow. da ngay takk ne incha allah ba am naa bëgg naa koo takk nag. Hmm? waaw ñu koy takk ñu koy nag jabar. Hmm. ñuy waxtaan àdduna am solo. Hmm? man xale laa tey yëfi daf lay am. képp ku ci duggoon. képp ku ci duggoon. képp ku ci duggoon. jéggal leen ngeen baal naa képp ku duggoon ci coono ndax artiste artiste xuloo. yéen ñu nekk artiste xuloo te si seen laamin maam ci bu ñu xuloo ci dugg sàcc sàcc ah. ku ñaaw ku ñaaw bu ñu xooloo ñu ñaaw ñu dugg mais artiste artiste ñu nekk ñu artiste dañ ciy maandu ci lañ mën a tëltoo di wutaa seen bopp bës dañuy maandu xam ne àdduna amul solo kii sama yaay la àdduna du neex a neex ba mu def ma lu bon àdduna du neex a neex a neex te bët bi muy koy doon la man bët bi muy koy xuloo nag xuloo bu jeexee sama yaay ma ko ñi xale maa ngi jéggoo te chaque jour dama lay jéggoo barke Seydou naa xaw dama lay jéggoo sax xam nga ni billaay wallaay du ma tëdd barke bu ko yàlla neexoon mu def la màkka wala Burkina Faso wala Zambie sama yaay Zomeski changé loolu ma ma. tuuti sama yaay Fatou man Pawlish sa doom man Pawlish xaritu doom man Pawlish xam naa li ma la wax dalaa metti seen normal mu metti la parce que xewee mel noonu c'est normal c'est normal nga buddee wax ma lu la neex tani dara nekk ci Fatou tani amul tani lu ci nekk. tan tan dana nekk ci Fatou sama yaay Fatou Laobé maa ngi lay jéggalu di la baalu ma lay sànni message soo xam ne rek pour nga jàpp ko muy saw Ramadan weeru jéggalaate weeru nga neen il faut nga nangu ni il faut nga nangu ni dangaa xeewi il faut nga nangu loolu boo ko nangoo Sénégalais dina la yërëm sax xewaraan la ñëw ma pour blâmer la Alioune Mbaye Nder gënoo ko gënoo abu ci bolo gënoo Titi gënoo Aby gënoo euh, Fallou Dieng ña nga xam ne dañoo xew a xew xew xew xew xew ba xew waxuñu ci dara ma wax leen daloo xew amuñu lu ni kaas yow mii am fit nag yow mii saagoo ay wax tontu ma wax ma ci wax bu dépassé c'est normal parce que xew yi moo mel noonu man nag dama lay sànni message yu ndaw yoo xam ne. yoo xam ne danga maa offensé c'est trop nga ne bu ngaa wax sama yaay dafa salissant papa dafa salissant nga tudd ba tudd samay waajur ci loo xam ne dafa yéeme te yow sama yaay nga ak sama yaay yow ba ngay jàng sama yaay gi sama yaay gi liggéeyee fële wakaam te ba ngay jàng ba ngay am bac sama yaay gi liggéeye wakaam di jaay ndox mu sedd xam ñu doonoo ñàkk suñu wàkk doonoo ñàkk boobu yow am nga bac li nga magee sama yaay kenn waxatu ko bari na aar bi ñi si jigéen ñëpp yaa yaa leen mag mën ngaa xalaat mën nga maa tontu beneen ton mu dul ton bi wala nga mën a tontu beneen mayonnaise bu dul mayonnaise bi wala nga maa tontu ci beneen ñebe ba ñebe bi xam nga ton dafa am tontu ak ñebe ak mayonnaise léegi dama lay wax ma tontu la tuuti rek te nga jéggal ma te nag soo soo fay du ma ak yow yow koor gi la parce que koor gi laa lay bàyyal man moom nag xam ni tey laa xam ne nag maa tontu. soo ko xamoon bu njëb la dinaa tontu mais tey bu ah, tax ci tax ci xam ne Paul soo expliqué ma xaw ma ne sax dafa mel ne da ngaa tontu ma tontu bu sali saa nga tontu dégg na dafa mel da ñaaw léegi nag man du ma la wax ju ñaaw dama lay dolli ñaari message Fatou sama yaay nga sama yaay ci tani tani nekk ci soo xewee di tani kay wàcc nga. boo xewee di tani ba wàcc nga parce que borom rab nga rab te borom rab nga. te yow da gis. boo tanee bu man man man boo boo tanee parce que yow ñi nga dëkkal man ñoo ma ciblé ne Fatou day tani ñi nga dëkkal ñoo ma ciblé ne ma Pawlish Fatou Laobé day tani tani dara nekk ci yaay boy lu nekk ci tani digg naa sa léegi tanetoo tanetoo da ngay wure ak tam ak ooyo lu tax na loolu gën a metti boo boo xewee bay ooyo kay nga xam ne kon sa sa xeewi sa yi sa xeewi dafa metti yaay booy mais jarul nga yow ñaaw suñu borom ay fale suñu borom ay xeewi yàllaa la xeewi da ngay nangu yàllaa xeewi mais li nga dem nii tax na ma ma gën man man dina gën a am fit xam ne xeewi dafa metti xeewi dafa metti lool fa ni nga reposé nii xam naa ne xeewi metti na ni nga reposé nii wax ba wax ba sa dënn yëpp xam naa ne xeewi metti na yaay yaay man bu dee doomu tuur daal di doomu yoon di doomu yoon doomu tulaat di yoon man man man man mi nga xam ne suñu borom moo may xool ni war a xeewee di xeewal yaa yaa xam naa ne xeew bi metti na trop yaa nga gën a xeew nga gën a xeew nag sérieusement yaa nga gën a xeew parce que ni nga xeew ba riposte wax wax wax ci ju ñaaw yaay yaay pourtant nag yow comme yaay yaay doo xewaat de mu nga attaque nag ci Pawlish mu nga wax ci Pawlish. bu ko yàlla neexoon mu def la màkka. wala Burkina Faso oh, wala Zambie sama yaay Zomes kii changé loolu man ma. léegi Pall bi si tax. waaw kontaan naa trop sama yaay kontaan naa trop yàlla na yàlla sàmm. ah day faatu man man naa ne incha allah dama ñëw takk la benn yoon rek ñu sëy man ak yow. takk nii incha ba am naa bëgg takk nag. waaw ñu koy takk ñu takk nag ñu nekk jabar. ñuy waxtaan àdduna mu solo. man xale laa tey yëfi daf lay képp ku ci duggoon. képp ku ci duggoon. ku ci duggoon. jéggal leen ngeen baal nga àq képp ku duggoon ci coow tam ndax artiste artiste xulo yéen ngi nekk artiste soo te si seen laamin maam ci mbërë mbër bu ñu xuloo mbëri dañ fi dugg sàcc sàcc bu ñu xuloo sàcc ñoo fi dugg ah ku ñaaw ku ñaaw bu ñu xuloo ñu ñaaw ñoo ciy dugg mm. mais artiste artiste ñu a préto di xam ne àdduna neex a neex ba mu def ma lu bon àdduna du neex a neex a neex parce que ba du muy koy doom la xuloo nag xuloo bu jeexee sama yaay ma ko ñi xale maa ngi jéego te chaque jour dama lay jéego barke Seydou Ndaa xaw dama lay jéego sax xam ma ni billaahi wallaahi du ma tëdd barke